bokk yi asalaamualeykum du ngeen ma fay bàyyi ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziyaara di la jéggalu ci kàddu yu gàtt yi namoon la rekk si moo tax ñu jóg taxaw di wax ak moom sunu yëf waaye tey kàddu amu fi lenn rekk lañuy fàttali la arab ba waxoon inna bani nahshalin la naddaci li abin waaye tey nag inna bani malikin la naddaci li abin wala huwa bil abna i yashrina si dellu siwaat ci sa kanam wax ni jël nañu buum gi takkaat ci suñu ndigg ànd ak sëriñ Moustapha njabootu xadra bi yépp ñëw ci naanuwaay bii billaahi wallaahi tallaahi tiwaawoon bii fiihal yumnu lil mutayaamini te wóor na ni fa maa taayirun taayirun mutashaa'imun walakinaha daatu tuyuril mayaamini walakinaha saarat madinatu malikin wa ma malikun illa karimul madaini yaa ngi ñoo ngi dañoo mar xiif jaaxle amuñu fu ñu jëm naanukaay baa ngi nii wàccuwaay baa ngi nii fii la yëf loo ci mën a dégg lu coow li bare bare lu dëkk bi riir riir bu nee kët lana jon na koy faj lana jonn mooy Seydil Hadji Malick gii bu du woon ak sa maam réew mi musiba dugg fi waaye bu du woon ak sa maam Afrique musiba dugg fi waaye bu du woon ak sa maam monde bi af musiba dugg fi kon si xadara bi yëpp a ngi dañu lay ñaanal yàlla tey bésu sant la yow gërëm la wax la ni la inchaa allahu xawma kan waa yow di nga fi yàgg xawma kan dinga gudd fan xawma kan waa yow moom di nga wér càndang ndax nag yow yaay mi xakku dëkk bi yow yaay mi xakku diine ji yow yaay mi xakku tariqa bi yow la mag ñi samp te sampantuwuñu la yow la ndaw ñiy xool te xoolantuwuñu la yaa ngi noo ngi dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla guddal sa fan sëriñ bi ku neexa a tiitaroo nga waxoon naa la ca xombal ni la loo dégg du nun waaye loo dégg du nun ñun si amuñu fu dul Tiwaawan ak yéen amuñu lu dul Seydi Xaaji Maalik ak njabootam su leen neexee noo ngi fi su leen naqaree noo ngi fi demuñu fen sëy si nañu sey si nañu sey si dañoo sey si sëriñ Moustapha mii li ñu la bëgg a wax mënula ko wax ndax daf laa jege ni ñu la jege waaye si nelaw wér ni ñëpp ëmbal nañ la cofeel billaahi wallahi tallaahi wàcce nga sa bopp ba ñëpp ñeme la waaye fal nga sa bopp ba ñëpp di la dëggaate te ku la xamoon dëgg-dëgg loxo bant bu gudd la lay laale ndax yow kenn du la ñam bàyyi waaye si ñoo ngi gërëm sëriñ Moustapha suñu rakk wuutu nañu ñaari at a ngi nii taxawunu fii waaye lépp lu ci war ci taxawaay ci jëfandiku jëf na ko doxal na ko matal na ko ba jotuñu ca yàlla yàlla matal léppam si muxta fii na màgg na kër gi amuñu ko ndaw damay wax ni nañ bàyyi wax ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi fii amul ku ndaw Seydi Hadj Malick dafa waxoon ni yow yaa waxoon ni sa baay nee na njaboot ga gën lañuy tànnal Seydi Hadj malik fii ku gis njaboot gi xam ni njaboot gi kenn tabarakallahu macha allah kon si ci gàttal gaañaa ngi may mere ndax ñi ngi naan dañoo mar dañoo xiif dañoo woor te yow yaay ndogu li bëgguñoo seen lu dul ndogu li kon si yaa ngoog noo ngoog na aajo yi faju yanu nanu diis nanu sippi nañu ko fañ ko waree sippi sunu loxo ngook jotuñu na aajo yi faju bu la neexee ak bu la naqari wóor na ma boo ne ay ca mu am koo ci gis ci ñun lamu mu ci soxla ajul ci xajul ci tànt bi bu dul bu dul dëgg rek wax leen ku bëgg sa aajo fajo rek yëkkati sa loxo kon nag si gis nga ni ñëpp seen aajo yi fajo rek lañu bëgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Habib